gi démb xeebu kontaan ci bëgg mu continuer bëgg mu continuer mu continuer daal yàqaluñ la yàqalul ma dara daa bëgg mu continuer Macky Sall bëgg mu continuer Macky Sall dégage loolu laa bëgg quel est le problème manifestation euh, salaamaaleykum waa Sénégal Eh, maa ngi nuyu ñëpp di. salaamaaleykum mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen yoo dañ leen di wax dal leen a jàmm ci seen seen bi nga xamante ne moo di SMTV tey nag ñu ngi fi nga xamante ne moo di rond point Case Ba gis nañ ne fan yi deux jours yi na ñoo leen fas yéene wàccal sur le terrain gën leen a leeral yàqu-yàqu ci am ak euh, gaañu gaañu ci am fas yéene ànd yen ci biir terrain bi wan leen ko. salaam sëñ bi noo def. waaw ñu ngi sant bu baax. yàlla sant yàlla. amin en tant que doomu réew mi doomu dëkk bi ñu gis ne deux jours yi Sénégal xawoon na yëngu ñenn ñi doon xeexal ndax Sonko ñenn ñi doon xeexal seen bopp gis nañ ne ñenn ñoom dañ doon agressé waale di profité waale mhm. yow en tant que doomu mi la moo ci sa xalaat waaw sama xalaat mooy euh, xeex bi du xeexal Sonko wala xeexal euh, maam du xeexal Sonko wala xeexal Mame Mbaye Niang tu comprends parce que ñaari doomu sénégalais ñoom ñoo ñoom ñoo jote donc du ay ñi nekk si bande tous bi ñoo leen di xeexal xeex bi fu mu gën a ñoree mooy bu 2024 jotee élection présidentielle na nga ko xeexee si biir urne yi ka ngay ñëw di xeex agresseurs yi di si bokk def defkatu ñaawtee fi bokk si kon donc après dootoo xamante lan lay nurul c'est ça le problème en tant que doomi réew gis nañ ne que démba xale yi dañoo génn ñi dañuy xeex Sonko ñi doon profité waa di ci agressé di ci def ay ñaawteef est-ce que loolu yow ànd nga ci non loolu kenn àndu ci mais tempête moom bu xasee ba jóg manifestation lépp a ngi ci mi ngi mel lamb bu amee rek am na ñoo xam ne pour defar am na ñoo xam ne dañuy jóg pour yàq loolu la rek waaw. léegi yow loolu est-ce que ànd nga ci xeex bi Sonko bu saa bu amee procès xale yi dañuy génn leen xeex Sonko dañuy génn leen xeex ñii ñu ngi ci ñàkk seen bakkan ñii ñu ngi ci am ay gaañu gaañu yow loolu la ma ci sax Sonko mais nag naa leen de naa la xam dara attends attends attends Macky Sall Macky Sall 2011 dañ euh, brigade de recherche quatrième section boobu maa xam nga maa ngi woon domaine boobu ma fekk ba si zéro taxawaay de aalu booy dañ ko doon aalul comme nii rek troisième mandat dafa am gars yi ak Sénégal moom wax dëgg yàlla mën nañoo kii lu ne mais mën nañoo tolloo doole nit lañ bañ xam nga Sonko kenn nit la biir askan wi moo tax ak ni ko gars yi néewalee doole toj ay otom yooyu loolu dëgg yàlla non xanaa métti ñu rek gis nga doomu aadama nit day yërmande dafa am nit day jéggale di baale waaye Macky Macky jéggalewul baalewul Sonko ni mu mel nii yàlla moo ko teg du kenn ku war a toog yàlla rek a xam waaye lii ñu koy jaay doole nit kuy wii bàyyi ko mu jaar fa mu war a jaar dem dina dem si jàmm àgg si jàmm xëy na nag doomu aadama yi koy topp mënta woon ñàkk mënta woon ñàkk nit foo dem am nga ñu la bëgg ñoo xam dañ lay topp sëriñ yi sax am na ñu leen bëgg am na ñoo xam ne luñ buñ leen fanaan leen fukki fan sax dañ fay fanaan sonko loolu la yàlla def ci moom waaye nañ ko bàyyi mu dem la muy def Mame Mbaye Niang moo ko woolu ñoom ñaar la nañ dem buñ demee taxaw kenn ku ne wax lu la naqari ah ku nekk wax lu la naqari da maa jiin nee na lii la lii ak lii nañ def loolu mu jeex kenn ku nekk nekk élection yi bu jotee nit ñi dofuñu ñi seen carte lañ yor kenn ku nekk ka nga doy nga votel ko xam nga ku nekk nag am nga ko nga bëgg kenn ku ne ñoom yeewu askan bi du ñoom dong Khalifa Sall ngi ci ah ah Bamba Fall ngi fi ñëpp ngi fi ku nekk yaa ngi ci waaye kenn ku nga ko la doy rek moom ngay votel loolu la wasalaam. amiin ñu ngi noo gisee démb xeexu demb bi demb dëkk bi jaxasoo na kenn demul kenn dikku. metti na lool ndax maa ngi ni dëkk ba Tiwaawan Pël waaye wër na Nabil Moustapha fi laa mujjee fanaan. ndax ñàkk oto aw ma fu jaar ba ñibbi. xam nga loolu tamit baaxul waaw. dana ban am ñoon daal xanaa jàmm ak salaam rek jàmm ju sedd guy ju sedd guy rek laa bëgg ndax ñun xamuñu ay xajuñu ci ay ay baaxul ay baaxul yal nañu si yàlla musal musal ci jullit yëpp waaye ay baaxul yal nañu yàlla defal jàmm te may wér ak wérle ñu mucc te muccale. bu ñu gisee des manifestations bi. xanaa mu doy waar rek ndax yëgootinoo ñu tasaare say alal it métti na nag métti na de moom. Mhm. ak ñiy jaay fii gis nañ ne démb seen jaay bi yàqu na damaa daw dem <laughs> ba say bagage yàquwu déedéet yàquwuñu dara waaye nag ñi ñu yàqal nag daw na yaram nag lii moom ñaaw na moom dañoo war a bàyyi loolu ndax alalu jàmbur ñu yàq itam nam du ci dara ñoom ku ñu bëgg bu wote jotee nañ ko wote loolu mooy dëkk waa waaye nag di yàq alalu jàmbur yi ñu ko fenn loolu du dara du baax baaxul waaw man de loolu laa am lu ma ci wax waaw mais na leen xeex boobu noonu euh, tey ji mun naa ne Sonko moom mooy moom mooy profil bi mooy tête bi parce que saa yu amee euh, procès si vay bi foog mu génnee nit ñi pour ñu ne kaa leen gunge ma kaa leen xeex la ma kaa leen kii mais te loolu jaru ko jaru ko bu dee wóolu na boppam te nee na moom xam nga yor na rapport yoo xamante ne mën na ko mën na ko justifier mais na ñëw indi rapport yi mu jeex li yëpp jaru ko <laughs> loolu kese la amul leneen bu cest bu ñu nax sénégalais yi aussi mais sénégalais yi nga xamante ne seen bopp baaxul tamit ñoom ñoo fiy nekk di xeex di topp gars yi rek ah mais ñun ñi nga xamante ne suñu xel màcc na bu élection jotee dañuy jël suñu kart dem voté li Sonko wala dem voté li Macky Sall ñun ñooy xool ku ñu sentir dem voté la c'est ça. xam na loolu tax boo yi génn mais bu doon bu doon kii kese def na ko def nañ ko fi Karim Wade def nañ ko fi mais dañu orom def nañ ko Khalifa Sall gars yi yóbbu mais xañ na Sonko ni ko gars yi tegee soog ni ak soo ko gars yi teg nii xañ na mooy naqari gars yi rek bu dee seen xol di xaw a kii ñuy sottuuti. waaye ay moom baaxul. waaw kay noonu les conseillé sa doom sa doom yi ak suñu rakk suñu mag yi xam te ñu bokk góorlu rek ñu góorgóorlu rek bañ bañ bañ yàq ndax yàq amul benn njariñ Macky Sall woo keneen oo keneen ñëpp si yam ndax ñoom tamit lu ñu fi indi rek suñu njariñ lañ du seen njariñ kon nag buñ ko yàqee piis ñu taal ñu ñoo siy dugg ñoom du ñoom du seen doom dugguñu si ñoom dugguñu si ñun ñoo si noo gisee démb manifestation waaw loolu moom rafetlu wuñ ko quoi ndax fii ñun ay jël lañ tal nañ leneen lu dul xeex xuloo ñun luñ gën a yitteel mooy liggéey waaw liggéey lañ gën a yitteel mais pas ñun parewuñ sax pour xeexal benn politicien waaw ñun ay jeunes lañ ma li may conseillé sama moroom jeunes yi mooy maam ñu wut ñu wutal ñu liggéey ñu liggéey ñun ñu fair play ndax fii ku fi toog sa bopp nga fi nekkal boo xoolee seen doom yi kenn nekku fi ñëpp a si réew ma ñun ñoo fi nekk kon maam ñun dañoo war a jàppale xam ne ay doomu réew mi lañ xam nga moo gën pa ay xeex a yi nii en tant que jeune doomi dëkk bi noo gisee manifestation démb yàqu-yàqu. ah démb manifestation bi métti na torop fii bëri na ay lakk-lakk policiers yi lacrymogènes yi lépp du yoon daal am na ay agresseur sax yu rax si biir xam nga jàpp di bricoler ay Auchan yooyu noonu yooyu moom du yoon waaw. léegi yow lan nga leen di ah maa ngi en tant que jeune gars yi ñu def attention quoi mooy loolu. maa non non man dem moom manifesté wu ma moom waaw. maa ngi lay fay soxna si. waaw en tant que doomu dëkk bi démb ñu ngi lay noo gisee manifestation bi nga xamante ne amoon na fi démb dëkk bi yëngu woon oto dem oto dikkul yàqu-yàqu yu bëri woon yow en tant que doomu dëkk bi noo ko mhm. waaw maa ngi leen di nuyu di leen bu baax di massawu dëkk bi yëpp population Sénégal dara gën a ko nag lu mel nii ndax mu ngi mel ni gulet mu doog a am ci réew mi tàng-tàng démb bi. ndax ñi ci yàqule bëri neen te manifestation moom biñ ko waxee pour man yàqu amul ci wàll pour man dañoo woo def manifestation wax lu leen métti mais bu ñu jëlee benn euh, visil benn affaire rek di yàq ci bitigi jàmbur yi tere liggéey nit ñi loolu dafa métti vraiment dafa métti ci miim réew te réew mi métti na lool fi ñu toll nii ndax jamono ji ñu toll xëy di kërti kërti suba ba ngoon sax doo am benn dërëm waxuma naa ne ñu xëy di leen yàqal ba kenn dem kenn dëkk dafa métti vraiment man moom ànduma ci tey ànduma ma ëllëg. démb gi xëy bu kontaan ci bëgg mu continuer bëgg mu continuer mu continuer daal yàqaluñ la dara. yàqalul ma dara daa bëgg mu continuer. Macky Sall bëgg mu continuer. Macky Sall dégage loolu laa bëgg. mais peut démb gis nañ ñoom dañoo profité waa di agressé waa la yàq yooyu lañ doon wax. non loolu d' accord mas mais xeex xeex la moom xeex moom xeex la. ku jot sa dër ku jot sa morom dër xeex xeex la waaw. le combat le combat continue la combat bi continue. mu continue mu continue loolu laa. amul dellu ginnaaw amul hmm. nan dem rek ba jeex. ba bokkoon nga ci bokkoon nga ci. waaw maa ngi woon si case bi démb. waaw te bu commencé waat dama koy répété waat. na ñëpp génn. xeex xeex bi mu jeex benn bi Macky Sall dégage. problème. manifestation bi dem eh, salaamaaleykum waa Sénégal eh, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu vraiment askanu Sénégal. mais d'après li fi jot a xew démb ñaawlu naa ko trop mu doon loo xamante ni rafetut ci image du Sénégal ndax ñun kenn mësuñu xamee lii ñun euh, ku xam Sénégal ku nekk xam ñu ci jàmm xam ñu ci aussi tamit vraiment mande xam ñu si aussi tamit teraanga kon bu ñu demee ba suñu réew mi mel nii suñu homme politique je pense que jaruñ lii ko en fait nañ waxante dëgg li li dara àdduna jaru ko quoi vraiment lii dafa ñaaw man de ñaawlu naa ko trop ñaawlu naa ko trop nag mais vraiment li moom euh, vraiment rafetul daal ci image du Sénégal quoi vraiment léegi ban conseil nga jox sa morom jeunes yi nga yàq daal am li ma bi jox mooy que lii Macky Sall jaru ko Sonko jaru ko comprendre nga que ñoom ñëpp ku ci nekk tey jii am nga loo xamante ni je pense que presque yenn yi doo ci gis seen njaboot ko en fait non seulement ñi nga xamante ni seen i parents xam nga seen i jo loxo jotu seen ginnaaw kese ñooy ñoom ñooy def yi te ñi ci jàpp tey après da ci déféré tey jii ñoom ñoo ciy sonn seen i parents ñoo ciy sonn on se dit la réalité am na yoo xam ne kon jëru ko man sama bépp jeune boo xamante ni man sama moromu jeune nga man conseil bi ma lay jox mooy nga am fulla am fayda sa bopp dëgg nag am nga droit xool parti bu la ne wala ànd ak euh, euh, comme comme euh, xam nga nga comme si que nga nga ànd ak parti politique bu la neex mais d'une façon xam nga naay sa ko waa je pense moo gën mais nag lu may am lu may wax rek mooy damay wax président nekkoon na delloo boppam xam ne ba muy jël nguur gi neexoon na lool te dénkuñu woon kàddu yi moom bañ ñuy jël nguur gi am na kàddu yi ñoon diñu wax yu dul kàddu yi kon bu demee ba jël nguur gi bëgg koo jël téye ko def yi def def woo xam ne ni yéen maam du neex si askanu Sénégal te doom réew mi bu ndee ay doomam leenu ndax moom leen jiital te boo liggéey suñu borom dana ko ko laaj nan nga woon say njaboot nan nga woon say say say njaboot te loolu di gàll rafetut ànduñ ci Ousmane Sonko mi mu jàpp tamit di ko bundu xataal yooyu mën naa ñàkk ndaxte góor la muy góor na ko bàyyi mu dem élection yaa ngi élection jot bu Ousmane Sonko gagné ñu xam ne Ousmane Sonko gagné ñu ànd ak moom liggéey loolu mooy yoon ndax réew mi réewum trans démocratie la méttiwut lépp dafa woo jaar ci yoon ndax te mim réew réewum jàmm la te réewum diine la li may waxaat tamit mooy kër diine yi kër diine yi nenu jéem a bàyyi xel ci sénès bi jéem a bàyyi xel tamit ci nguur gi ne wax nguur gi wax ak Macky Sall mu dellu ginnaaw ci lim nekk ndax lim nekk wax dëgg yàlla rafetul man ànduma ci tey ànduma ci ëllëg. ça en tant que jeune en tant que doomu dëkk bi noo gisee manifestation démb bi ak gaañu a ah, démb franchement moom affaire yi métti woon na trop parce que même ñi nga xam ne bokkuñu ci sax comme ñun élèves yi dañoo obligé arrêté suñu cours yi à cause de grenade lacrymogène yi am na élève yoo xam ne même dañoo def ay crise d'asthme alors que quel que soit alpha lañ bëgg a lijjanti mën nañ ko lijjanti ci jàmm ak salaam daal moo préféré génn genre di toj bagage di jël bagage nit ñi et tout ça alors que mën nañ koo waxtaanee jàmm daal moo gën lépp ñun jàmm lañ bëgg surtout ñun ndax suñu cours yeeg yëpp arrêté nañ ci suñu parent yi di inquiété wu alors que loolu yëpp mënoon naa ñàkk ñu dox ko ci jàmm ak salaam. papa noo gisee manifestation démb bi ak yàqu-yàqu yu ci am. tàng jër rek tàng lu dul jàmm jàmm moo ko gën Macky def na ñaari manda na dem bàyyi ñoog Sénégal ñu nekk jàmm ak salaam vraiment liggéey na Macky Sall liggéey na wax dëgg yàlla liggéey na mais nag jeexal na dem. Ousmane Sonko war a dafa war a doon candidat dara waru ko mën a yàqal aywa ñun jàmm lañ bëgg Sénégal jàmm la ñu xam moom la ñu bëgg te jàmm moom moo dàq lépp waaw fi na nii lépp tout est au ralenti lépp taxaw so loolu du yoon xam nga loolu du yoon waaw Macky liggéey na liggéey bu mucc ayib pare na def na ñaari candidat eh, ñaari ñaari mandat na takkaay sam dem Ousmane Sonko am na droit dem élection dara war ko mën a baare jàmm daal la ñu bëgg Sénégal jàmm la ñu bëgg loolu daal mooy sama xalaat en tant que Sénégalais en tant que doomu réew mi ndax lii wax dëgg yàlla man rafetlu ma ko daal vraiment ndax dëkk bi métti na lool jamono ji ñu toll. léegi ban conseil ngay jox jeunes yi nga xamante ne génnoon nañ démb yàq ndax tey gisoo bisu dem dëkk ñu yàq tey ñun ñoo ciy dugg bu ñu yàqee suñu bopp lañ yàq ci yàqu-yàqu. waaw d'accord euh, gis ngeen bii si dem dikk yi ñu yàq loolu si réew mi la dëkk si réew mi ñoo ko moom gis nañ tamit ñu yàqaat yu demee ni ay Auchan yàq yeneen station yoo xam ne ñu ngi ci réew mi te doomu réew mi yaakaar naa ñoo ko moom mais loolu li ñu ciy wax mooy nanu nanu delloo suñu xel xam ne alal ju ñu yàq ci réew mi rek doomi réew mi ñoo ci liggéey jeunesse bi ñoo ci liggéey ndax benn pas du jog di dem ci ñu koy jël di ko jox ci benn poste boo xam ne da nga ñu ko jox ci muy liggéey non non non ñun jeunesse bi ñoo dese ñoom ñoom moom li ñu woo moom kon nag buñ ko jëlee yàq ko dañu taxaw da nga maam duñu xam fu ñu jëm nanu dollo suñu xel bu nu jëlee ne dañu marche nañu marche rek am lu ñu métti ñu marche ko ñaxtu ko bañ a yàq alalu kenn te xam ne luñ fi yàq xam ne suñu alal la ndax doomu réew mi ñoo fi liggéey te bitig yi ñu yooyu yëpp extra ay station yi doomu réew mi fi liggéey benn tubaab jógee ko wut Europe benn espagnol jógee ko wut Europe benn euh, chinois jógee ko Europe ñëw di ci liggéey ñun ñoo ci liggéey kon nen bàyyi loolu xel xam ne réew mi ñoo ko bokk mënuñ koo séddoo buñ doon dañ koy séddoo konoon duñ judd ñun dañuy fekk suñu maam yi séddoo ko nanu bàyyi loolu xel bu baax. ni ma ko dundee dem xanaa sonn rek nag. dañoo génn démb sonn bay bëgg a dee xale yi taal pono yi ñuy bëgg dee saxaas yi dañu xaw a rey dëgg yàlla ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi waaw te yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke yoonu ci yàlla Muhammad appel ngay lancé population bi xanaa ñu bañ a génn xale yi dañ bañ a génn di di sànnante xeer day fi ñàkk fay la du dëgg da leen di utiliser rek te am loolu amul benn njariñ du dëgg nda xale yi daal dañ bàyyi seen xeer yi ñuy sànni yi fi ñàkk fay la ñu bàyyi ko te dem liggéey moo gën ku nekk sa bopp nga fi toog kenn xamu leen keneen xamu leen du dëgg wax nañ góorgóorlu bàyyi yooyu yooyu baaxul ñu ne laaj dem en tant que doomu dëkk bi en tant que jeune noo gisee manifestation bi démb yàqu-yàqu waaw ñu ngi euh, di koy naxalu baax a baax di am trop la ñu métti parce que ñun ay Sénégal lañ amuñ fenn furub si dëkk bi quoi wax dëgg si yàlla fi lañ nekk daan suñu doole te boo xoolee démb heure bi ñun ñi kenn liggéeyu te kenn ku si nekk aussi wax dëgg si yàlla heure boo dañ koy ñaawlu di ko naxalu bu baax a baax quoi di wax aussi président Macky Sall ne ko nañu dimbale parce que dama jàpp ne simplement may ñaar kese waru mën a tax tey ñu poñe dëkk bi ba nga xamante instant kenn mënul am say activités normalement loolu aussi lu ñaaw la quoi wax dëgg ah, salaam rek waxtaan moo ay franchement parler waaw ñu waxtaanee ko daal xool beneen façon xam jàmm daal kenn du ci gaañu. moor yeeg blessé yëpp ñu sonn nañ ci franchement parler. man waxuma pour yàq mais manifestation bi laa wax man waxuma si waxu ñi jóg. mais tamit loolu tamit bu kii la ci wax bi la parce que tamit démb am na ñoo ne bëgg nañoo ñibbi amuñu oto. bëgg yàq na seen bi la loolu ñëpp si xeex la xeex moom bu xesee jóg moom léppay jóg bu xesee am moom léppay jóg. jàmm rek jàmm daal moom moo gën Serigne Touba dani jàmm gisul lu ko gën àddina gisul lu ko gën àlaaxira jàmm daal moom mooy lépp nañu wul jàmm nekk ci jàmm. wasalaam di woo aussi kilifa diini yi ak euh, kilifa aada yi gars aussi artu président Macky Sall ndaxte tey boo xoolee ñun ñi démb kenn génnul de mais le trente bi nii bu fekkente ne nii la war a demee ñun ñëpp dañuy génn de parce que tey ñun duñ nangu aussi lu ñu liggéeyee nit duñu ko yàqal wax dëgg si yàlla parce que tey da ngay doom si si autoroute bi ñu nangu sa moto ak mais loolu yëpp bu ñu kenn dañuy blâmé le président Macky Sall parce que dama jàpp ne Mame Mbaye kese warul mën a tax tey lu yàq démb si dëkk mu yàq quoi dañ koy naqaru di ko ñaawlu di leen euh, remercier aussi seen liggéey bu rafet bi nga aussi yéen a def internet indiloon tey seen MT du jour di leen wax nag bu leen fàtte abonné suñu plateforme YouTube page TikTok Instagram qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient